beneen bi mooy tey euh, euh, day Xadi voilà leen koy toppee ci dossier voilà loolu man dama ci tontu loolu parce que ci biir dossier la am na détails yoo xam ne ci dossier bi loolu secret instruction bi la dañ ko ci dexiñ ci biir. mais xanaa leen koy toppee du secret instruction. Ah, laaj ko ko wala laaj ko ay avocat am dégg li ñu toppee ne Xadi Njaay xanaa du léegi lii. mu gën jox la ca laajee la biir jox la ci explication. yaa ngi waxoon bés li ñuy toppee moo ñu jàpp sañ na la la la loolu loolu ñëpp xam nañ ko ni yow xam nga wax nga ko sax. kon est ce que Adji Sarr ko toppee leneen li tam. loolu comme comme topp ñu Adji Sarr loolu yow lu ci sa yoon wala yow yaa jàngale juge bi liggéeyam xanaa sob rek déedéet wala ngeen war a wax yem leen ci li ngeen war a wax Adji Sarr fu ngeen déggee dañ ko yóbbu ci yoon. wala juge bi moom kii moo gën a xam liggéeyam juge bi yow jàng nga droit juge bi def lu mat ñaar fukk ak juróom ci affaire affaire atte ah ba dégg doyen des juges léegi benn journaliste bu ko jàngal liggéeyam ku ne na yem palaasam ku wecc sa ànd ku wàcc sa ànd ànd woo yéeg mu toj yaakaar naa ni yem sama place non loolu laaj loolu loolu ñàkk mën laaj la laaj day am day am solo am gëdd ànd ak jamono waaye ndax aji saar la ñu mën a topp nga loolu ba ay ay wax yi ndax si xateeg la. est est-ce du ma ci tontu loolu yëpp dossier bi la du ma wax ci dossier bi tey tey damay wax ci ki nga xam ne moo oo Sénégal ni moom dafa liggéey Sénégal nañ ko xeexal ba du ba kenn du ko àttee kooku mooy yëpp Sénégal.

parce que dama ni kenn mosuma gis ma changé position déglu ma dama ni naa fekk weesuwul koo xam ne masul changé position chaque jour nga ko ndax ndax ndax am nga ñaareel ci mu ne la am naa ñaareel ba pare parce que yabeel yabeel weesuwul koo xam ne neewul man léegi léegi man monogame laa amatuma ñaareel dara changé wul nga bëgg ma laajaat dina ko laajaat loolu mooy soit naa fekk nga soit yab nga ma wala soo xam nga ma ci wax di di di di ñëwaat ci li ma waxoon wax waxee ki ko fi def dina wax français yi laaj ko ko tey laajal ko tey kenn ñëw koo laaj koo ko laaj tey man ngeen yem man bi nga xam ne mosuma changé mu tax ñuy ree seetaan yi ree fi ñu war a ree xam nañ ko ku ma dégg ma changé la ma waxoon da ngay ba ma changé li ma waxoon nga ne may El Hadj Diouf jommal nga ñu de El Hadj Diouf jommal nga ñu yaa fi waxoon lii dindi nga ko. bu boobaa ma tontu la lu la fi waaye ci waxoon du wax ak France du wax ak RFI tey ba nga demee laaj nga ko ndax Ousmane Sonko jombal nga ñu koo ko laaj tey ko laaj dee ni nga ko ragalee jaaxal na ma man kenn yàpp man mi changé wul benn nga naan ndax ko laajaat rek ma yàpp la sa waay daa seet am naa ñetti jabar ñu doy a ma la léegi wàññi naa benn mais lu loo loo ma déggal ba dama wàññi ñaar am laaj yoo xam ni am nañu waxoon dara waxeet xoolal laaju seytaane taxawee jàlloo ngeen ngeen ni miig ni pat kenn du ko ñemee laaj yóbbu ko vaar kenn du ko Ousmane yaa ne woon Macky Sall am na droit troisième mandat kenn ci yéen du ko ko laaj dee. d' accord naa am naa droit ña ñoo ñàkk ba kerse rek waxtaan rek ci suuf biir dañuy waxtaan. soxna si bu leen dara metti man yéen nag laa bëgg xam ngeen ni yéen maa ngeen la connexion la am loolu am depuis le départ waaye entre nous nag qui aime bien châtie bien ma ni ki ma gën a bëgg Sénégal mooy Macky Sall moom a gën la jibi soow yëpp mais maa ko dàq critiqué barke alxuraan ba ñëpp foog ni opposant la deux mille dix-neuf bi passé biñu déggee El Hadj Diouf ngi watee Macky Sall day ñëw ne eh El Hadj dafa transhumé ma ne fan laa jógee man ma fal Macky Sall 2012 di ko critiquer di ko critiquer ba 2019 ma falaat ko ndax ki aime bien châtie bien sa kii bi ki xasaw na sa doomu ndey moo la koy wax kon journaliste boo gisee ñu posé question yoo xam ni jaarlu yoon damay am fit ak fulla wax leen ko ndax ñu bàyyi ko tey bu ma sañoon dégg tey yéen ngeen ni Sonko yow yaa waxoon doo wax ak France doo wax ak média français yi barki dén boo jaay lu tax a tax ak français yi di wax ngeen wax soog ne yaa waxoon ni Macky Sall amul trois troisième mandat ti foo waxee ni bu fekkee ne troisième mandat dëkk bi tàkk kenn ci yéen du ko laaj ni ko yow Sonko yaa waxoon ni troisième mandat yaa Barthélémy Dias Macky Sall am na ci droit sa campagne yëpp léegi mooy Macky Sall amul droit troisième mandat yow ko yëpp bu léegi yéen ñi sama xarit yéen journaliste yi ñu bokk liggéey bi mën ak yéen di ñaan ngeen war a Sonko di ko gënu leen mënu leen a nopp bu njëkk daaw leen may sangeen wax moom rek mooy wax ñu ne dem leen acca def déclaration lay def ñu dégg ko moog ay français muy wax ak ñoom ngeen ne ko wax Sonko tontu ci lii ak lii ak lii tey sax commencé waat na ko ndax daa bëgg neexal journaliste yi il faut ne mooy seen xarit parce que léegi l'heure est grave fi mu nekk la bataille médiatique fait rage il faut maam journaliste yi man mi leen bëgg dëgg nag maa ne wax dëgg kon ni mu koy waxee Macky Sall sama xarit sa gémmiñ nga xasoon na sa doomu ndey moo la koy wax ku leen di sàmpul sa taar la bëgg kon ñàkk ma kersa kenn waaye comme am na fit laaj ma ne ma la doon wax di ko wax di wax di wax ndax yaa ngi koy wax ba léegi te am na koo waxoon weqi te ñemu koo laaj damay jaaxle man damay jaaxle lool ponkal mu toog jàlloo yéen wax waxeet kenn du ko wax man ma wax wax wax wax wax sama ma waxeet nit di ma laaj naan ma ndax la nga waxoon looloo ci loolu da nga dégg damaa changé dafa metti dafa metti di nekk ci li mu nekk mosu cee génn kenn jóge ba ne ko ndax da ngaa bàyyi jàng école te maa ngi jàng école nekk premier de la classe xam nga ne metti na. jël réew mi rek ëllëg incha allah le meilleur candidat en 2024 l'homme de 23 juin je l'ai toujours dit incha allah rabbi